ma ñëw mais ma tuuti ma ñëw euh, soleil élection présidentielle mooy nit ki lan la teg ci loxo yi askanam lu ko askanam di wóoloo lu mu teg ci loxo loxoy askanam dugal ko ci nopp askanam mu àgg ci bopp askan bi àgg ci xolu askan bi loolu mooy def nit ki président de la république du Sénégal ma wax la lu tax mu jox la ci firnde président Macky lu jiitu mu nekk président de la république soo ko ni woon yow président Macky Sall man bi ma ko xamee septembre octobre 2011 laa amante moom jataay xam nga loolu juutu na mu nekk président jamono boobu soo ko nee da nga nekk président dafay fenati ndax gëmu ko. man am naa entretien xaaral xaaral xaaral. même ma man j'ai fait un entretien avec le président Macky Sall damay bàyyi ma pare ci li nga wax la. def naa entretien ak Macky Sall en 2010. ci siège APR bi nekk wetu Saint-Lazare. Mm-hmm. Mm-hmm. je lui pose la question euh, Abdoulaye Wade a fait 26 ans d'opposition pour y arriver vous vous ferez combien d'années mu ne moi je ferai 3 ans. je suis le futur président de la République du Sénégal. ma laajaat ko ko 24 juin 2011 mhm. au lendemain des événements mhm. du 23 du 23 juin. Mhm. il me redit la même chose. très bien ah. ma tontu la ci loolu amoon na ci ngëm-ngëm. xaaral ma tontu la ci loolu. Ah. gis nga amul benn nit bu am yéene nekk candidat à la présidence de la république naan la su ma demee damay daanu. ah mais Macky Sall gëmoon na. son projet quand même ma ñëw même ma ñëw. Ah. ci gëm projet boobu dama lay wax man ba ma ca wàllisee lan laa ci def. non balaa balaa li nga ci def xam nga fi mu nekk nii on n'est pas dans dans la contre contribution bi nga indi ma sax dama ne dama ne Farba Ngom mhm. il été maladroit mhm. mais mën nañu comprendre benn côté li mu wax mhm. tey app Alliance pour la République bu ñu toogoon xëy ñu ne Abdou Aziz Diop mooy suñu candidat opposition bi dinañu kontaan xam nga lu tax parce que Sénégal boo xoolee traditionnellement ni ñuy tànnee souvent dañuy tànn koo xam ne bu ñu projeté woo ci moom dinañ am yaakaar ci xam dinañ am yaakaar ci xam-xamam ci wàllu koom dinañ am yaakaar ci capacité am à représenter le pays dinañ am yaakaar ci capacité am à apporter une vision et des solutions te souvent boo xoolee de Senghor à nos jours à part Senghor Abdou Diouf dafa am parcours bu mu def doo nekk président Ablaye Wade dafa def un long parcours dans l'opposition def des va-et-vient dans des dans des nekk président donc il a eu toute la légitimité politique pour être président ma ñëw ci Sall ma ñëw ci loolu Macky mhm. dafa nekk DG Euh, ministre euh, de de l'énergie et de l'hydraulique ministre de l'intérieur premier ministre président assemblée nationale mu jeexale ci président de la république tey ji tey candidat yi ñuy wax boo plongé woo ci parcours Amadou baax am na lu la ciy rassuré ne ah kii kat bu ñu ko joxee lenge yi mën na yor réew mi boo plongé woo ci parcours ñeneen ñi tamit am na toujours ci seen parcours lu mën a tax nga am yaakaar ne oh, ci wàllu koom ci wàllu diplomatie ci wàllu politique mënal na ñoo dara Sénégal du Sénégalais yaakaar ku mu yaakaar ne mënaloo ko dara dafa la déggul tut ma wax loolu ma la amul ci kenn ki nga tudd ku mënal dara Sénégal. ah kay même tuuti. am nañ njort non même tuuti tuuti ma wax la. wax nga ba pare danga may bàyyi nag ma wax xam nga lu tax boo waxee ba pare nga war a bàyyi ñi ci des wax man bi ma bindee sama li sama téere gañe sama téere gañe la débat ca laa ca noppee addu lu dul ku mu neex boo ko jàngee bu la neexee futbal bu la neexee xotti bu la neexee saaga duma la tontu parce que man wax naa ba pare dañ ma war a tontu comme nga wax nga ba pare. danga may bàyyi nag ma tontu la parce que soo bàyyiwul ma tontu la dafa am loo ñàkk lu tudd ruuxul taxdiir mooy l'âme révérencieuse mooy wax naa ba pare naa bàyyi nag ñi ci des ñu wax deetuma tontu kenn ndax sama wax moomatuma ko wax nga ba pare moomatoo say wax ñooñu nga lim amu ci kenn ku mën a yor réew dama lay wax nag lu tax. yaa yaa mën a danaa la wax lu tax ma mën a yor réew. ñoom mënuñu yor réew yow yaa mën a yor réew ñoom mënuñu yor réew. ah danaa wax lu tax mënuñu yor réew. Ah. ba pare wax la man mi mën a yor réew lu tax ma fu ma ko teg wax ma lu tax ñoom mënuñu yor réew. li ñu li tax ñoom mënuñu yor réew mooy. Hmm. li nga tuddee expérience pour yor réew ñoom amuñu ko. ah bon. tudd tur parce que aw ma droit tudd tur fu nit ki nekkul du expérience nga wax. Mm-hmm. ñaari expérience il faut que mu daje ci nit ki. ñaari expérience fokk mu daje ci nit ki pour nit ki ñu ni ñaari expérience yi daje ci moom war na tax tey bu jiitu woon réew dana xam fu muy teg tànk bi ci jiitu mooy est-ce que nit ki am na expérience ci kujje politique ñaata at la nekk ci kujje politique parce que li gën a metti ci politique du ku nekk ci donkaase gi koo xam ne ni président moom la mu yaa ko neex sa xar kanam moo ko neex xar kanamu Abdoul Aziz Diop neexu ko mu def le premier ministre. Abdou Diouf amul benn expérience ci coupe may ma tuuti ma ñëw. may ma tuuti ma ñëw wax nga ba pare danga may bàyyi ma wax. waaw mais c'est un échange xam nga lu tax. Abdou Diouf amul benn expérience ci kuje politique. dóor nga sa loxo ci ëkk. danaa la wax benn expérience la am ci kuje politique. waaw ah. déglu baax ma wax li ma lay wax. ñi nga tudd amu ci kenn ku am expérience ci kuje politique. ki fi nekk premier ministre sañ naa koo tudd parce que. sama yëf la yor ndax il est le premier ministre du Sénégal Amadou Ba amul expérience ci kujé politique lu tax amul expérience ci de politique mooy mosul def kujje politique Amadou Ba maa ko njëkk ci parti bi septembre octobre 2011 bi may wax président Macky Sall fi ngay jaar ba falu booba Amadou Ba xelam nekkul ci dugg ci politique. Amadou Ba membre du parti socialiste. même ma ñëw rek. moo la jiitu ci politique. même ma ñëw. il fut membre du parti socialiste yow dafa nga ni ku nekk membre du parti socialiste moo judd ab moo judd ab moo la jiitu ci politique en tout cas. dafa ndànk tuuti ma ñëw il fut conseiller parti ngay dem da ngay dem nga ah. yëraat sama jaar-jaar. bala ngaa wax ni diw moom a njëkk ci politique da nga koy yër ba pare tant que yëroo ko te journaliste nga da ngay wax loo wóor parce que yow boo waxee. mais man je ne t'ai jamais connu avant une appartenance politique. Ouais, mais... loolu nga wax mais da nga koy gëstu. mosuma la xamal. gëstu ko lu ma gëstu suba ba tey mu gisuma. fu foo amee une appartenance politique mais ma ñëw mais ma ñëw da nga koy gëstu parce que politique soo ko yebalee ci militer ci parti da nga tuutal politique parce que jéggi na loolu dama lay wax ni ki ngeen tudd amul expérience ci opposition politique parce que musul. nekk ci parti bu nekk à dans l'opposition di xeex ci opposition diiru fukki at ak ñaar man yi ma xeex ci opposition nekk ci bopp mbootaay gu day ni le mouvement du 23 juin. xeexoo woon ci opposition dama doon wax sénégalais yi ne intellectuel soucieux de l'intérêt national. ma soo xeex ci opposition même ma ñëw même ma ñëw même ma ñëw. xeexoo woon non je veux qu'on soit d'accord. ma soo xeex ci opposition wax nga li wax ba pare. nee nga musuma xeex ci opposition. bàyyil ma wax la da tant que société civile nee nga musuma xeex ci opposition. da doon wax en tant que société nee nga nee nga musuma xeex ci opposition. Ah. nee nga musuma xeex ci opposition. indil image bi nga wane woon sama. télé non da nga doon société civile nga nekkoon. mosuloo ba ba ngay ba société civile nga nekkoon ngeen nekk mouvement 23 juin. xam nga yow su ma la nee avec su ma la nee su ma la nee. Ah. amul benn organisation de la société civile. bu mën a wax ni Abdoul Aziz Diop bi nga toog di waxtaanal a été membre de tell organisation de la société civile amul. non j'ai toujours été une personalité indépendante. Ouais. seule waaw ouais. mooy mooy société civile. même ma ñëw même ma ñëw même ma ñëw li gën a gaaw ci dàkkantal nit société civile mooy nga ni yow ancien membre de la RADDHO nga ancien membre du forum civil. nga wala nangam ak nangam. no ci la gën a gàtt laa la wax société civile jéggi na dama ne loolu la ni. Euh, opposition politique bi ngay wax jarul jékki ngay nekk ci parti politique pour def ko jarul jekki ngay bokk société civile wala nga bañ fa bokk di ko def